asalaamaaleykum euh, mbokku Sénégal ak li ko wër mbokku àddina asalaamaaleykum yéen ñi nga xam ne yéenay teewlu di ñu seetaan fii ci sunu chaîne SSP ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziar di leen jox seen wàccuwaay di ñaanal di ñaan ci yàlla jàmm ci Sénégal ak li ko wër ak fépp ci àddina ndax boo duggee ci gaal mag ñu baax ñi di ko wax ni boo duggee ci gaal yor ëmb ak lu mu mënti doon ëmb ba def yére wala def cere bul ñaan yàlla wàcc ak ëmb ba dangay ñaan yàlla gaal gi sauvé ak ña ca nekk dañuy ñaan yàlla jàmm ci sunu njaboot ci ñun di ko ñaanal njaboot képp di ko ñaan ci diwaanu Sénégal ak liko wër yàlla mii borom jàmm te nga xam ne ku mu jàmmal nga am jàmm yàlla nañu yàlla jàmmal tey nag xam naa ni di euh, gis ma toog ci émission Jojo et ses maras waaye dafa di kiy def émission bi dafa jàpp yoon te nit ñëpp xam nga ni mooy sotti ci rek ak def ci kër gi sunu kër la ku manqué rek sa morom mën laa remplacer def sa émission wala defal la émission Jojo dina ñëwaat incha allahu rabbi àggale li nga xam ni moom mooy euh, émission am gën a recevoir ay invité tey nag man Cheikhou Gueye ñu gën maa ne xam ci Sanekh ma toog indi leen invité muy doomu soxna di doomu ku baax di ku baax bokk fu baax jànge fu baax amee xam-xam fu baax amaana sax liñ koy gis ci tele yi wala liñ koy gis ci réseaux sociaux yi néew na waaye yàlla may ko xam-xam te may ko xam-xam gu sell mu doon borom xol bu rafet lool ñu koy wax Baye Cheikh Ibrahim Niass Baye Cheikh maa ngi lay nuyu. alhamdulilah Cheikhou alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala seydinaan Muhammad wa ala alihi wa tasliman ñu ngi lay nuyu seexu di nuyu mbooleem ñoo xam ne ñoo ñuy seetaan si réew mi ak si bitim réew di ñaan yàlla jotaay bii nga amal yàlla may ñu si dégg ak toppee guñ ko mën a toppee. waa mhm. Cheikh danga nga seq ak dañuy seq waxtaan incha allah. Mhm. bëgg naa waxtaan wi tegu ci xam-xam. Mhm. ñu xam kan mooy Baye Cheikh Ibrahim Niass fan la jàngee ñan ñoo ko yar ci yan loxo la génne parce que dañuy gis mag ñu baax ña démb da daan am lu soqi ko ci seen géñoo ñoom ñu am xam-xam mais duñ ko jàngal ñu jël doom jooju dénk seen nawle gu am xam-xam ku ñu sëqal addina ku ñu sëqal diine ku ñu sëqal alquran maanaam doomu soxna yeeg doomu nit ñu baax ñépp daanuñu jànge seen kër bàyyi dañu daan jànge ci seen kër naw lay baay ñu gis ni nga bokk kër Cheikh Ibrahima Niass mm-hmm. lan nga ñu mën a wax ci sa juddu foofu nan lañ la fa téye wala fan nga jéggaani woon jàngi fa xam alhamdulilah Cheikhou mais nag sëñ bi bëgguma mu nekk mission boo xam ne dafay loow allah mën na mën na tegu ci xam-xam ak teggin mm-hmm. waaye aussi euh, ñu xam yow yaay kan waaw loolu boo ma ci laajtee dinaa sawar lool. waaw Cheikh man mii di wax ak yow si famille Niassène bete bete laa si. bete bete. boo ko déggee mooy ndey ak baay yëpp ñes lan. jëf ma nekk nit koo xam ne maa ngi juddoo si Mirina Baye. biir Mirina na biir Mirina Baye laa juddoo. waaw sama yaay ki ko jur bokk si njabooti Malaaji Abdoulaye Niass muy bàyyi Baye Niass. <laughs> man sëti Baye Niass laa. sëti Malaaj Abdoulaye Niass la macha allah. bi ma juddoo nag ba am juróom benn weer. Mhm. la sama papa génn àddina. macha ko yàlla xaaral mu doon lu métti lool si ñun. Mhm. mu doon lu métti lool si seen dund. si mhm. seen yaay yi. da di nit bu juddoo dina baaxantal mu xam nañ la baayam doon dundee si àddina pour ëllëg moom mu mën koo dundee. man sama baay ñaankat yàlla la woon. daf daan dem Nigeria di dem fu ne si àddina bi mbooloo di ko topp mhm. bi ma juddoo mu ne moom may na ma Faatumatu zaara mooy yaay imam Assane Cissé mooy taawu Baay Ñas bu jigéen mhm. bu ma nalawaan si kër gi sax dañ may jël dolloo ma si këram mu amoon si man nag nattu gu yéeme goo xam ne dafa yéeme woon ndax soo maam boo waxee daf laa daf lay wax na la bàyyi xolam dafa rafet te du mer ma liggéey fa nag liggéey bu rëy si moom hmm. mu yar ma yar goo xam ne ba àddina du tukki yar goog mu ma yar man duma ko mën a yar sama njaboot hmm. mu yar ma si lislaam yar ma si diine jàngaloo ma hmm. ci biir jàng yi ma jaar si ay tolof tolof yu métti yoo xam ne bi ma siy jaar yaakaaroon naa ne man Cheikh baay ndax bis dana jot ma mën a am téeméer wala ñaar téeméer bu ma amal sama bopp. ci biir jàng bi ci biir jàng bi. foo jàngee. maa ngi jàngee daara imam Assane Cissé laa njëkk a jàngee. Hmm. fa laa njëkk a dalee jàng. Hmm. bi ma nekkee daara imam Assane Cissé sama mbokk pàpp yi jël ma yóbbuwaat ma daara ju ñuy wax daara alajaas sax daara barxam. Hmm. daara jooju si la ñu bëri taree sax ñoo xam ne ay waa Mirina lan. bi ma nekkee si daara baram maa ngi fa nekkoon ak sama mag boo xam ne ñoo bokk pap muy mm-hmm. sëriñ daara léegi sax moo yar daara ji kilifa gu mag la mm-hmm. boo demee tey kawlax dafa sanc dëkk sanc dëpp di jàngale mm-hmm. moom jàngale rek la xam bi ma fa jógee sama maam jël ma yóbbu la yóbbu ma kër abibu kër abibu mi ngi nekk région de Nioro ma yàgg fa lool comme man doomi jirim laa parce que ñoom loolu lañ ma daan wax ñu ne man doomu jirim laa na xaw ma sama yaay xaw ma sama pap sama yaay rek laa xam te si diggante biit man xaw ma sama yaay Mm-hmm. parce que man sama yaay yaruma mm-hmm. man taawu Baay Ñas bu jigéen moo ma yar mm-hmm. bi ma demee kër abi ba di jàng mu nekk euh, lu métti loo xam ne dama ko daan dund mm. ci daara si daara ji mooy dama jàpp ne sama alxuraan man dañ ko sacrifice lu parce que dama daan toog ak yow di jàng maa gën a mokkal ku ne mm. mais bu may tari du ma mën a wax lu parce que boobu xaw ma lan la si biir famille bi ma bokk ñu bëri ñu ngi góor góorlu pour man maam alxuraan tari pour ma mën a siggil sama yaay hmm. parce que boobu sama yaay li mu bëgg rek mooy man ma tari alxuraan mu bokk si yaay yi nga xam ne dañuy ndamoo ne sama doom ci mbiri na bàyyi tari na hmm. bi ma demee kër abibu ñi oo imaam Assane ko bàyyi mën na jàng mën na liggéey mën na def lépp waaye dafa laaj ñu dimbale ko mu góorgóorlu imaam dem inscrire ma association sociale jógee jugee Saudia pour ñi nga xam ne seen bàyyi dafa gaañu pour ñu mën leen a dimbale di leen dooleel ci xaalis ñu koy am bi ma ko imaam inscrire ma dem ba si mu yàgg ma am fa lu toll si fanweeri junne imaam na nañ ma ko jëndal fas ndax sama xol bi bëgg dëkk bi ma nekk nag di daw jàng daw jàng yu métti parce que boobu sama gis-gis si alxuraan gisuma ne damaa war a tari. Hmm. waaw ba benn jour sax sama yaay dafa ma jàpp dóor ma dóor yi métti hmm. ne ma dangay dellu mais suñ ma dóoraan dafay métti sama maam parce que man dama xëy noonu hmm. jamono jooj dama opéré am feebari biir hmm. ma am opéré xeer bu ma lekkoon ma am si feebari biir feebari boobu biir boobu nag daan naa ko tappalee si daara ji pour suñ ma waraan dóor dóor yi métti ma ne sama biir bi mooy métti ma nekk kër Abibu parce que juróomi at yàlla dimbale ma ki may jàngal xam na ne man mokkal naa waaye mënumaa tari Mm-hmm. loolu dafay am si jàng mm-hmm. maa ngi nekk ak doomi borom dëkk bi doomi sama doomi papa bi Habib mm-hmm. koo xam ne Habib la tudd ma naa ko nuyu passage mu bëgg ma lool nag moom man ak moom ay seex lan woon si daara ji ma ne ko ñaar moo mën a am benn yow nga man alxuraan tari wala man ma ñàkk man alxuraan tari waaye nag su fekkee ne liñ def nii dañ ko def pour man ma ñàkk tari mm. kon yow taril yow loo gis ni lu ñu def la waaw boobu jamono waaw xam nga boobu xam nga man ni ma juddoo dafa nekk juddu bu garaaw. Ah. nee naa la damaa judd six mois sama papa gaañu. Mhm. te xaal bi ma juddoo man. Hmm. dafa fekk xaal boobu sama papa dañ ko xeex si baatin ba amatu taxawaay. man sama papa bokk na si njëkk aw sa njëkk a aw sa miri na bàyyi sama papa bokk na si ñoo xam ne bu taxawaan. Hmm. lii may wax nii seede laa si am miri na bàyyi boo demoon ñu wax la ko. Hmm. fu nit mën a jóge si avion si àddina su ñëwee dafay laajte fan mooy kër Aliou Marème Niass. sama baay si at yu néew la gaañoo sama baay bi muy gaañu dafa ubbeeku dafa ubbeeku si asaraal ubbeeku si ñaan yàlla hmm. mboolem lu doomu aadama di soxla si mirina da ngay ñëw nga laaj ko ko hmm. am naa kilifa yu mag yoo xam ne moo leen jàngal asaraal kon man xaal laa juddoo hmm. xaal bi ma juddoo nag bi ma demee man ba ràññee si laa xam ne man si xaal laa juddoo ndax waxtu wu ne damay gis yonantu bi sallallahu alayhi wasallam yow mii man mii toog nii mu xeebu mii d'accord bi ma fa jógee mm. jugee kër Abibu nekk Dakar mm. di ànd ak rapport yi ñoom Fada Feredi ñoom nonga di waa groupe bi nga xam ne mooy groupe ànd liggéeyal Baay Ñas si mbir rab yi nga gis rek ñoom xumaa nag ñoom ñëpp xamoon naa leen xam naa buñ ma seetaanee lii may wax nii daneen si xam dara boobu Colobane daf daan jaay ay musuwaar yoo xam ne dañ koy takk si bopp mm. mu nekk musuwaar yi américain fulaar yi waaw fulaar yi. Mhm. benn jour ma dem seeti imam Assane Cissé. Mhm. maa ngi sol jiin bu rëy mu ne ma foog nga dara jëlee sa bopp xam ne doomi nit ku baax nga yàlla dimbale ma nag sama benn nijaay jël ma indi ma dakaar mhm. di ma jàngal oto pour ma dawal. daan nga rab. noo daaw ma rab moom. d'accord da nga daan bëgg def dara ma ne la kaa ma bind la taxi bi. nga bind ma bind. d'accord sama benn nijaay jël ma. indi ma Dakar di ma jàngal taxi. Hmm. di ma jàngal dawal pour ma mën a dawal am permis. Hmm. bi may jàngal dawal ba si mu yàgg benn maire jël ma ne moom dafa ma bëgg a doomoo. Hmm. jël ma indi ma këram teg ma këram. boobu ñaata at nga am. boobu yaakaar naa aw ma sax bu ma nga am ay vingt deux ans ay vingt deux ans vingt côté yooyu loolu rek la am boobu at yi ndaw la am boobu xale la bi ma jëlee teg ma këram ma nit ma sawar lool. yoreel ko depaasu këram géeg li jugee këram yépp ma yoreel ko ko mm-hmm. sama yaay ñëw seet si ma dakaar ak ay mbokkam ñu gis situation bi ma nekkee ñu ne ko kii ñes la sant doomu Mirina Baay la mm. mu ne leen kii sama doom la Géy la sant man demoon naa ban bëggoon maa santale Géy ndeysaan waaye yàlla mi dara tëwut ma am foofu ay ñaan yàlla jël ma yóbbu ma ma am Dakar tuuti gàllankoor yoo xam ne ay gàllankoori xale la mën nga ñu wax ci gàllankoor yi tuuti. parce que gàllankoor googu. Hmm. su ma koy nettali sama yaram dafay daw. waaw ndax dama jëfal nit jëf ju rafet. mu hmm. may ma benn numérique. numérique numérique bu ndaw. ma téye numérique bi mu soxlawaat ma mënut maa jot mu ne kii dafa dugg sama biir kër sàcc ma. sàcc sama njaboot waaw sàcc sama alal. photo la photo waaw numérique bu tuuti la. waaw bi ma ko mayee sama mbokk yi jël ma yóbbuwaat ma kawlax parce que dafa am sama mag boo xam ne. dafa sacrifice dundam si man pour man ma nekk dara muy sëriñ daara Axabu Ñas waaw bi mu ñëwee ba gis situation yi ma nekkee si kër gi mm. def na déedéet bàyyi mii duma ko fi bàyyi mm-hmm. daf ma yóbbu ba géej mm. ne ma lii lan la mën a ko ndox mm. mu ne ma noo tudd mën a ko Cheikh ma Ñas mu ne ma kon yow kër gii ma la fekk du sa place mm-hmm. da ngay ñibbi mm-hmm. ma doon bañ lool nag Cheikhu bi ma mayee benn mimérique samay mbokk soxla ma moom mu oowaat ma ne ma boo jullijee tëbëg si boo fa defee benn fan dawal nga ñib siyaat ma ne ko waa baax na mhm. bi ma julisee tëbëg si sama mbokk yi ne ma doo dem mhm. moom it mu yónnee pëlis ak ñëpp Kaolack ne leen Cheikh bàyyi dafa dajj sama kër sàcc ma sàcc lu ne mhm. ba numérique bi nga xam ne sax mi ngi ko amee ma jël numérique bi dénk ko sama benn xarit ma nit nag gannaaw gi Imam Hassan Cissé ne nañ ma yóbbu Mauritanie su ma demee danaa nekk si Cheikh Baye wul xëy ba maa ngi koy nuyu ab passage boobu lijjanti nañu yëf yi sàcc numérique beeg boobu lijjanti neen ko ba xam ne yëf yi du yëfi dara lu dut ndaw si man moo ma soxla parce que man seexu hmm. man képp kër gu may fanaan hmm. kër googu wàllu yàlla yëpp dañ fay dajee man doomi ruuxu laa man ni ma gisee nii suñ dëkkoon si kër benn fan hmm. yow da nga ne ki fanaan si kër gi kan la parce que mboolem aluma yu baax day feeñ ci kër googu mboolem wërsëg day feeñ ci kër googu macha allah biñ ma yóbbee Mauritanie imaam na ma ndax mën ngaa def tani fukki at ma ne ko mën naa faa def fukki at ak nangam bi ma ñëwee Mauritanie ma dal ci sama mag mu baax lool doon kuy am yërmande doon ku social. Hmm. mu ne ma loo bëgg ma ne ko comme damaa jugee Sénégal ñëw te yow yaa ma nangoo jël ngir liñ ma tuumaal si àddina yow nga nangu maa jël. Hmm. foo ma tegal sama tànk rek fa laa jëm. Hmm. ma def ko nag comme mag topp ndigalam topp lépp ba benn jour ma tëdd guddi. dajee ak Cheikh na ma radiyallahu anhu ci gént si gént d'accord mu ne ma def nga Murtani fukki at ak benn mhm. sa mbokk yépp dañoo wax ne sànku nga dootoo ñëwati sa yaay mi ngi war fu ne di ñaanlu yàlla mhm. waaye la nga doon ut yépp sotti na ñibbil mais Murtani daan nga fa am dara Murtani daan naa fa am dara Murtani dama amoo woon soxna Murtani am naa fa soxna fa la sama taaw bu góor juddoo très bien Murtani fa laa njëkk amee soxna bi may takk jabar maa ngi am vingt trois ans mhm. vingt si laa takkee jabar Mhm. parce que boobu lu tax ma takk jabar dama téye benn jumaa joo xam ne pendant quatre ans mhm. maay lal añ bi nit ñi di lekk maay noddu waxtu julli yi maay noddu tusubaar maay noddu fajar maay noddu takkusaan maay noddu gee su ma paree maa yor jumaa ji yor naa jumaa jooju ñetti at jumaa jooju moom la Baay Ñas njëkk am si Murtani ma nekkoon fa nekk si kër goo xam ne kër ak ambassadeur de Baay Ñas la macha allah maanaam heure boo xëyee da ngay gis nit ñi di ñëw mhm. si sëriñ boobu ma nekkoon ak chaque jour daan naa ko dugalal ñaar fukki bidon ndox ak juróom ñetti yoon si journée bi. vingt cinq bidon yaa ko daan root di ko ko dugalal. par jour pendant trois fois si journée bi. d' accord. moom mu wax ma ne ma. muy soixante quinze bouteilles. par jour. de vingt litres parce kër gi waa parce que Mauritanie amutoon ndox. très bien boobu dañu root. waaw ah. mu wax ma ne ma dinaa tëdd ba guddi. Hmm. bàyyi sama njaboot gi dina ñaanal. Hmm. kum gis rek daf naan ko ñaanalal kii ëllëg bëgg naa mu doon dara. ndax mbokk la te bëgg na ma ndeysaan ma jugee fa nag Murtani laa njëkk a jàngee baatin si wàll jëm si ñaan yàlla ah d'accord maanaam mbiri ñaan yàlla man Murtani laa ko njëkk jàngee fa nga jàngee xam-xam fa laa ko jàngee man très bien mboolem lu may xam tey mboolem lu ma xam tey si sama diine si sama àddina si sama dund Murtani laa ko xamee parce que li tax ma xam ko mooy dama demoon ba formé fa daayire di jox ay nit wér de tijaan di ànd ak ñoom si masla bi nga xam ne moom la Cheikh na Tijaan boole ak ñun mhm. ñaareel bi di ànd ak ñoom si bërëb yi nga xam ne bërëb yi fasantikoo la jëm si diine mhm. man dama yàgg nekk si social pour diine l'islam man diine rek laa bëgg mhm. bi ma nekkee Murtani ba def fa fukki at ak benn ma am tur nag Murtani tur bu siw lool même buñ la jàppee ramas boo ne Cheikh Baye ma yónni dañ lay bàyyi macha allah gouverneur yeeg politiciens yeeg président yëpp xam neen ma man. waaw Cheikh lu tax toogoo fa. waa li tax tooguma fa mooy nee naa la man sama bopp man. Mm. tànk bi sama papa jaaroon. waaw ba yàlla may ko mu téye àddina bi. Mm. tànk boobu moo ma indi tey teg ma Sénégal. ah mais sa papa duñ ko jël ci wàllu baatin. waaw dëkk bañ ko jëlee. Mm-hmm. yow nga dem beneen dëkk di fa am baa dafa am wilaya dafa am di fa am dara am fa baatin jàng fa di affronté waat dëkk ba ñu loree sa baay. waaw xam nga man maay sama taaw yaay. waaw man mënumaa dëkk àll. waaw parce que sama yaay maay njëkk nekk ku ko war a sampal kër dugal ko si. waaw sama yaay pendant sama papa bi mu gaañoo ñoom 30 ans. Hmm. si fitna la nekk ñoom. sama papa ñetti jabaram yépp dañu doon xeex. pour kër gi ñu suñ baay bàyyee kenn du ko jaay ay doomam buñ màggee dañ koy fekkee te loolu am na te loolu am na mu doon xeex bu métti nag si ñoom ñi jaay seeni xar di jaay seeni or di jaay seeni alal di liggéey di ñaq chaque weer ñi dem fay benn trente mille wala benn cinq mille pour mën a moom kër gi attends pour mën a moom kër gi kon sa wayjur wu góor génn na àddina sa ñetti soxnaam yépp continuer di dëkk continuer di dëkk allahu akbar man say soo ma gisee ak sama man soo ma gisee sama doomu bàyyi tey waaw da nga naan ñii ñoom ñëpp ñoo bokk ndey ak bàyyi fa nga dëkk ci ñoom ci kaw lax ba léegi man sama tànt laa gën a mën a wax ak sama secret sama yaay d'accord sama tante bi nga xam ne mooy nekkoon sama ñaareelu jabari pàpp waa tey si biir kër googu tey la ma fa moom tey moom moo ko dëkkee ah maanaam daal kër ga yow la nga fa cër ba nga fa am wala ba ñu miraasee la nga fa am yow sa tante nga ko nga ko jox. sama tànt moom la dëkkee. waaw xam nga lu waral lool. waaw soo bàyyi dafa daf ñu jur. boo la nekk ay nit ñoo xam ne dañoo fasantikoo ñoom kii jugee caamen taati gin kii jugee si séeréel si kii jugee ñeseen. ndeysaan sama yaay nag moo doon jabaram bu ndaw ndax moom sëti Maalaaji Abdoulaye Niass darete la. d'accord man yàlla daf ma dimbale ñi ma yar ñëpp. man damay toog man kenn kese. Mm. man man méritoo naa lu ne si àddina ndax man seexu bi ma nekkee xale ba nu ma màggee ay wàllu yàlla rek laa doon rendre compte man xaw ma foo man musuma nekk si ay xale di foo musuma nekk ay xale di foo man dama daan yóbbu añ bañ may wax ne ma ndax xool leen góor jigéen bi bu enoo añ ni mu mel man suma maam xamuluma foo allahu akbar man musuma foo du ma foosi ay xale. waaw ñu la nga daaneel waaw. ndax du ma fubal. waaw musuma fubal. Mhm. musuma dem si li xale yi nekk. Mhm. man foo ma fekk rek yaa ngi ma gis si biir mag ñi. ak ci si alxuraan si gis si biir mag ñi. léegi mu Mauritanie nga jàngee fa xam-xam ñibbi si waat Sénégal. ma jàngee fa xam-xam si Sénégal histoire Mauritanie. Mhm. dayoo bi ma tolloon Mauritanie. si wàll liggéeyal lislaam dayo boobu gëm naa ne bis dana jot ma toll ko si Sénégal. mais tollagoo fa ndax tollaguma fa ndax li tax mooy Murtani moom dëkk jihaad la mhm. xam nga Murtani boo fa nekkee tey na rek ngay dund mhm. mooy ki gëm a gëm yàlla ki dàq julli ki dàq wirde ki dàq jaamu yàlla mhm. te ñaareel bi da ngay dajeeg taalibe yoo xam ne ay tukkulóor lan ñii dañuy gëm diine ji ñii dañuy gëm diina ji waaye ñii dañuy bëgg Baay Ñas man seexu comme Nigéria dem naa ba dugg si biir Ibaadu Rahmaan yi ne leen man seen taalibe la pour ma décorter àddina xam lan mooy àddina parce que boobu suñ julliyaan tàkkusaan ba pare ñoom dañuy taxaw waaraate wax ay sunna yoo xam ne méngoowut ak ñun sin sunna hmm. ndax ñun tey am neen yaqin ne daneen gëm sëriñ parce que li tax ñuy gëm sëriñ mooy bin juddoo dafa am ñu seen bàyyi yaakaar teg ñu seen kanam ñi tudduñu hmm. dafa am ñu ñu jàppaloo tarixa tijaan am ñoo xam ne tey ñooñu xamloo yàlla bañ xam yàlla hmm. kon ñooñu tey nandal nañ ñu loo xam ne suñ bàyyi nandaluñu ko si ñoom daal ngeen jokk si ñooñ lañ jokku waaw ñoom nag nekk seen buntu si yàlla hmm. maanaam tey man am naa suma buntu si yàlla hmm. man Cheikh Mahi Cissé moo ma jox tarbiwu hmm. bi ma jugee Murtani ñu bëri dañ ma doon wax ne du kenn mënu koo tarbiwu léegi ñële dañoo gëm ni ñoom euh, yàlla kenn mënul dox sa diggante moom yaa mën a liggéey loola àggale ci moom waaw ñun loolu lañ gëm d'accord mais ñun liñ gëm ñun dañu gëm ne ñun yàlla de façon duñ ci yàgg affaire ah. gëm-gëm la waaw affaire gëm-gëm la daal waaw waaw mais bi may nekk Murtani waaw si laa njëkk a def xalwa hmm. ne man damaa war a dellu sama mbokk yi wala damaa war a des Murtani hmm. ma def xalwa ñetti yoon hmm. ñu jox ma benn pilaan bu sama papa daan toog mu mel ni sama papa daf may wax na ma ñëwal fi nga nekk ñëwal ma xëy 2013 ma ne man de gis naa ne damaa war a delluwaat ñibbi ji bi ma njëkkee ñibbi si sama benn xarit yóbbu ma si benn sëriñ pour sëriñ bi defal ma ay sangat ay ñaan yàlla ay ubbeeku ay wërsëg te boobu loolu yow mën nga ko te ban loolu mën naa lu raw loolu dani pat sëriñ bi bi ñu toogee sëriñu malien la mu ne ma ah. demal nga jàngal sa papa kaamini alxuraan hmm. nga defal ko ay sarax hmm. kooku mooy sa sëriñ ba tey jii may wax ak yow sëriñ bi joxum na gàllaaj ma sangoo ndeysaan dafa dëggu dafa dëggu waaw ma jànkonte si nag si lu métti loo xam ne dund naa ko hmm. man damaa dund lu métti sama àddina dama ko dund si daara dama ko dund si kër dama ko dund si ay itte man sama nijaay indi na ma dakaar hmm. mu bokk sama yaay moo sama yaay ñoo bokk yaay. Mm. ma indee dakaar mu génn dem tukki Europe wax kim dëkk ak na ko bu bàyyi di dikkee génnal bagage mi mu dem fu mu xam na fa dem. seen nijaay boobu mook sa wayjur jigéen. ñoo bokk yaay. d'accord anamu. mi ngi mi ngi Italie. bi mu defee loolu. bi maa bu la déggee nii du. non loolu du dara jamono xam nga jamono dafay dox du ma ko jàppal dara parce que dafa bëggoon dafa bëggoon ma xam àddina. waaw àddina bu. loolu la ci jublu woon waaw loolu la ci jublu woon. waaw parce que gis na ne mi ngi ma yor te bëgg na ma ñam tumuranke pour ma xam àddina. waaw su ma toogee ak yow dakaar bu heure añ jotee damay defar sama cere ju bëri su may ñëw su ma jugee kawlax di ñëw damay defar cere ju bëri cere ju waw. Mm. su heure añ jotee bu buñ toogee bu ne nañ leen dem añi man damay suur. mais su ma ñëwee si kër gi ma dëkk damay tas cere ji ba mu waw ma def si suukar lekk dem toogaat si nit ñi mais si guddi yooyu nag maa ngi liggéey am xawil juróom-ñeenti yoon si jour bi. mooy lan mooy latif. d'accord maa ngi koy liggéey juróom yoon si jour bi. mu nekk ñaata li mu nekk dafa bëri trop 16641 moom laa daan liggéey juróom-ñeenti yoon si jour bi. 16641 fois fois 9. moom laa daan liggéey si jour bi su ma toogaan huit heures si guddi. non loolu loolu loolu mbokku téléspectateurs yi il faut il faut que ñu euh, seize mille six cent quarante et un fois moom laa daan liggéey si jour bi. am xawil waxtu bu ne. benn seize cent quarante neuf benn toogaay bu ne. waaw dinaa ko def ñaari waxtu ak xaaj. bi ma koy liggéey di ko liggéey di ko liggéey di ko liggéey ba mujj si mm-hmm. ma am feebari biir ma gis benn sidit buy wàcc si man ma dem si benn docteur mu ne ma da nga am hémorroïde ma ne ko luy lool mu ne ma kanaan dangay toog lu bari ma ne ko waaw man de damay wirdo rek parce que aw ma fu ma jëm waaw ba benn jour ma tëdd guddi ñu ne ma dafa am ku am soxla biir buy metti mm. bu ñëwee si yow utal jëlal sa kurus gi nga def ko si ndox mi jox ko mu naan ko bu ko naanee dana am jàmm soxla bi nag dem na fu ne si àddina waaye mënta sotti. kurus gii nga yor. boo duggatu kurus bi. waaw man gi waaw gii nii waaw. bi mu ñëwee dafa toog ak man ne ma boo xamee li ma dal. Mm. yow boo xamee li ma dal. Mm. lépp loo ma laaj si àddina ma jox la ko. ngeen ko sa biir lay tubaab bu weex tal la naari libaanee bu weex tal. waaw ma ne ko benn cet nga am. mooy problème yi biir bi métti. te bis ni ki tey jàppal na taqali ko nga ak biir bi métti. waaw après. ma jël sama kurus gi jox ko ko ne ko am naan bi mu naanee toog ba mu yàgg biir bi daw. waaw mu ñëw ne ma man de sama biir bi démb ba léegi dafay daw mais lu ñuul kukku laay génnee. waaw ma ne ko dafa am tox boo lekk boo xam ne. tooke waaw tooke boo lekk bi nga koy lekk poson la te noob la te noob bi nga koy lekk dafa fekk mu fanaan moo la doon sonal. mu ne ma dama bëgg nga wax ma ki la jàngal xam-xam bii nga am nii ki la ko jàngal ma mën a dem xamante ak moom. Mhm. ma ne ko a ah, nga baal ma de munoo am ma ne ko man amut benn sëriñ bu delsee benn siiru jox ma ko na ma utiliser lii Cheikh dama lay wax lu garaaw bi ma juddoo ba fi ma toll nii. Hmm. benn nit ci àddina musul maa jox asaraal na ma jëfandikoo lii. li nga yor yàlla sunu borom moo li ma yor yàlla moo ma ko jox. mais est-ce que du Mauritanie lañ la ko jàngalee. sëñ bi la ma fa xidma moo ma may li ma yor Cheikh man mboolem ku jugaan Sénégal ñëw maa lay tegal añ nga lekk. macha allah toggal naa sëriñ juróom benn at maay togg añ. maay togg reer maay togg ndékki waa revo nañ dellu si si euh, euh, tubaab léegi biir bi métti boobu da koy faj ba léegi waaw wala biir bi métti bi ba léegi dama koy faj day set wecc si man xam nga man yow yaa faj sa bopp man duma faj sama bopp nag waaw man bu ma tawatee dinaa seet ku ma doy hmm. ma wax ko dara mu bindal ma ko mu bindal ma ko ma naan ko mu wér ku la doy ku la doy mais li muy bind yow yaa ko koy wax waa maa koy wax na ko defaral ma lii lu tax yow doo ko bindal sa bopp non mënuma ko parce que nit mënut faj boppam des fois man sama njaboot gi bu buñ feebaree damay jooy man. mais yow tubaab bi euh, naar bi bi mu ñëwee. Mhm. biir bi metti kurus gi nga tëmbal ko ci ndox mi. Mhm. jox ko mu naan yow kurus gi boo ko defee ci ndox boo ko naanee doo wër. ba sin joon nag yàlla tey. Ah. méttit bu nit mën a am. Ah. bu ma roccee sama kurus gi daf ko si ndox bu ko naanee mu tàqali koog moom. ak méttit bu mu mën a doon ak méttit bu mu mën a doon si àddina. parce que kurus gi dafa da nga ko da nga ko naan dal. wér man damaa jaamu yàlla ba yàlla may ma li ma amee. bi may am fukki at bi may am ñaar fukki at ak juróom-ñaar. Hmm. laa njëkk a yonantu bi mu jël kaasi meew jox ma ko naan ko ne ma naanal. sallallahu taala damaa ñëw fekk yonent mi ngi nelaw soxna Khadija mi ngi tëdd ne ma yonentu tëdd na ma dajee fa ak Baaba Lamine Niass doomu Baay Niass képp kuy gis yonantu li may wax nii ñi may seetaan daneen xam li may wax képp kuy gis yonentu si guddi yi nga nekk danga nga Baaba Lamine Niass bi ma ñëwee ma dugg toog Baaba Lamine ñëw toog ne keekal la. ñu ne ko keeta doomi Aliou Marème Niass la mu ne ma ne ko damaa am gàcc lu tax ñëwuma nuyu la mu ne ma kenn du toog si kanam yonent bi di jug di dem di nuyu ji keneen man bi may am ñaar fukki at ak juróom-ñaar si la lépp ñëw si man seexu amut benn nit buy toog ak man wala muy toog ak yow ñëw na la Cheikh Baye maa ko jox siiru bi te yow sa xam-xam wóolu nga ko ba jàpp ko. li ma xam man ma woolu ko man. Hmm. lenn rek laa xam ne duma ko def sama àddina mooy lu bon mhm. lépp lu ñu defal nit mu doon dara mhm. wala mu màgg nekk nit koo xam ne nit ku difficile la si àddina mhm. bu ñëwee benn fan ma defal ko ko mu dem yoonam kon yow sëñ bi bu ñëwoon tey jii ni la damaa bëgg nga liggéeyal ma diw doo ko liggéey du ma ko liggéey damaa bëgg nobanteeg diw bëgg nga ñu boole waaw soo waxee da nga bëgg nobante ak nit waaw loolu dañuy wax noob waaw gis nga faate Fatiha de kullaaya bi ngay gis faate Fatiha alhamdulilah rabbil alamin duñ ci ñëw mais noob koo xam ne tey jii ku jigéen ñëw ni la noobal ma ñànku mais toog mhm. wala noobal ma sànneex mhm. te ñànku yëgul saaneex yëgul da ko koy defal waa dama koy defal si benn méthode dama koy seet ba pare waaw soog koo defal waaw dama koy xool ba xam ne seen rawaan yi dëppoo na mais bu ma bëggul nobanteeg moom nag te yëguma ko tinuma ko des fois nit ki dina ñëw si yow benn anam boo xam ne nii waaw lim la soxla lim la sant waaw bu dul lu bon rek da ko ko war a defaral mais mais mais jigéen mën na ñëw ci yow sant ma benn sant la benn noob boo xam ne man yëguma ko ma defal ko ko <laughs> mais bu fekkee bëgg maa teg moom na nga lor xam nga la moo tax koy defal waaw si condition bi mu ñëwee man waaw seexu waaw man ñett yii laa gën a mën a dimbale sëñ bi man loolu d' accord ma ko waaw yow d' ko nobuma nit waaw yëgu ma ni daf ma nopp wala topp na topp na maa ngi ñëw topp na ma ba sonn ma bañ mm-hmm. mu ñëw ci Cheikh Ibrahima ni ko noobal ma saa neex mii ndax dama ko nopp na noobal ma ko ma topp ko ci perti perti ci dëkk bi léegi est-ce que te te te te te du sama tayeef mais est-ce que yow waaw yow waaw njëkkoo dem si sëriñ waaw ne ko noobal ma jigéen bii si déedéet bu ñëw nekkuñu ci contexte boobu euh, waaw xam nga da ngay wax nekkuñ si loolu lan la ñu nekk mm-hmm. est-ce que doo ko ne wool ma diw mi nga bëgganteel ba mu d'accord ni yéen ñaar bëgg ngeen ànd ba pare. man li may noobee nit. waaw soo ñëwee na ma seexu laa bëgg comme jëkkër. waaw ma seet ko seen biddi wi ànd. waaw seen sëy bi am mucc. waaw ma boole leen ngeen sëy. mais bu fekkee bëgguma nag. léegi nag bu fekkee na yow bëggoo ndaw si di nekk ak moom nag chaque jour li nga bëgg ndaw si di la ko defal te takkoo ko fu mu jëm. boo waree takki jabar da nga ko fay war dem takki keneen. non waxuñu defal. non déedéet yow wóorul ndax mi ngi may defal walla defal mën na am ni sax du ma gis. non dafa am contexte boo xam ne boo ko jigéen ñëwee. waaw man damay xam ni mu ñëwee lan la seexu. Hmm, d' accord waaw wax ma loolu rek. ñett ñii laa gën a mën a dimbale. waaw mooy ki ñàkk ba yoru dara. waaw jigéen ji sonn. si hmm. sëyam. Hmm. ba jëkkëram mënu koo respecté. waaw ak góor gi gën a bëri lu muy tawat ci alal ju yàqu. ah yow sa fort. léppay sama fort mais dama la wax ne la ñett ñi heure buñ daanoo si sama tànk yi. Hmm, nga kontaan. damay kontaan parce que damay xam ne yàlla moo ma boole ak ñoom. ah waaw waaw moo tax man ni la loolooy yow loolu mooy sa spécialité. mooy sama spécialité boo xam ne su ma ko amee man damay kontaan. waaw parce que man gëmuma ko ma ni lépp laay def. déedéet déedéet déedéet maanaam lépp nit du ko def. waaw xam nga lu tax lépp nit du ko def. waaw maa ngi lay nettali si biir wax ne la. waaw. 2015. waaw dama mës a dajeeg benn waay. mu ne ma dama am feebaru rëñoo. rëñoo waaw rëñoo. waaw mu ne ma dama wër si sëriñ yu bëri ñi ne dañ koy faj. waaw ma ne ko kaama digal la. Hmm. soo demee ba docteur jox la benn qualité feebar si sa yaram bi. waaw bàyyil sunguf si ngay naan bàyyil li ngay naan. yow doo def sunguf ak ah. ma ne ko soo mënta uti alxuraan ayati sifa ak ah. ayati sikkiina nga di ko naan. Ah. bul naan leneen. ah d'accord. ma ne ko dafa am nit fu muy toll si àddina. lépp lu koy docteur di wax moo gën a opté li koy gisaanikat bi di wax. ah yow loolu nangu nga ko. bu baax a baax a baax a baax parce que docteur dafa am lu mu jàng. très bien. docteur dafa mais nag loolu loolu. raar na sëriñ yi. waaw non dafa duñ ko nangu xamul tax duñ ko nangu. waaw sëriñ lu mu fort fort fort fort. mënut yem ak docteur. parce que docteur docteur a gën a foor non sëriñ bi ak docteur bi lenn rek mooy seen différence. waaw sëriñ bi gëm ne moom sëriñ la. Hmm. diggante moog boromam. Hmm. lépp lu ko si istixaar jox mu ne mën na ko. Hmm. da koy def. d'accord docteur nag diggante moom ak ay scanner rek ay analyse lépp lu ñu ko wan. Hmm. ne ko lii mën neen ko. loolu bàyyeeko ak docteur bi. tey boo ñëween tey si man ne ma Cheikh Ibrahima damaa bëgg nga faj ma. dama am cancer cancer bi am infection dama naan la yow da nga bëgg a mënu ma laa faj de dama si docteur ñu faj la. très bien. parce que loolu du sama liggéey. waaw da ngay gis ñu la. soo ñëwee si man nag. waaw indil ma ne ma sama xol day tàng. waaw. sama yaram day sutante hmm. sama biir dafa bëri gàllankoori feebar yu si nekk hmm. damay bind ayati sikina hmm. ak ayati sifa jox la ngay naan d'accord loolu nag danay dindi jàngoroy nit ba mu set wecc ba nit ku du am benn gàllankoor waaye nag boo ñëwee si man indi yenn maladie yi dama naan lan demal hôpital man bopp buy métti sax boo ma ko tawatee lu bëri sax dama naan la demal hôpital ndax man bu ma feebaree hôpital moo may faj des fois ma dugg xalwa su ma paree si xalwa gi hôpital laay yeewu jee ndax toogaay bu métti ndax toogaay bu métti parce que su ma demee dañ naan man danga nga manqué énergie lekkoo sa toogaay bi dafa yàgg seet li war si man si énergie ñi defal ma ko ma dem doxi sama soxla yi su dee loolu nag nit da ko war a ba xel léegi nag sëriñ si uh-huh. fii lañu amee réeroo ak marabu yu bëri uh-huh. parce que marabu yu bëri uh-huh. du ñu wax seen patient yi lii ngay wax nii parce que dañuy gëmal patient yi nii leen lépp lu leen dal ñun mën nañ koo saafara loolu mënta nekk médecins yi dañ leen di dañ leen di nangam dañ leen di sàngal seexu parce que ñun bëgg nañu tamit ñu mel ni yow mhm. di gindi nii ñun euh, sëriñ fii la commencé ba fii la yem médecin tamit dafa am cërëm soo jebetee waaw sa panter sa parent sa moo yàqu waaw loolu uute na ak sëriñ bi koy traité waaw sa pancréas waaw xam nga sëriñ lu mu si man waaw nga ñëw muy seet garabi olof yi nga xam ne moom lay docteur yi di defar comprimé bi. waaw mu jël ren bi deret ak sunguf si deret di la ko may. muy dimbale sa point yaram yi. waaw loolu sëriñ bi mën na ko. waaw mais am na fu sa suukar di toll. Mhm. docteur bi moo si gën a am opté pour mën koo gérer. ah pourtant nag am na ñuy faj lool de. man xam am na ñoo xam ne dañuy faj ay suukar ak. di xam nga seexu waaw. suukar kenn mënu koo faj. non non non non seexu dafa am yoo xam ne bu la koy nit di wax. Hmm. da nga koy xalaatee bu doon yow. fa mu toll si yow ak fa mu toll si yow. d'accord gëm naa nag man. Ah. ku am jabet. Hmm. jabetam di ko sonal lool. Hmm. nga am ay garab yoo koy jox si garabi olof yoo xam ne bu koy naan day régler suukar si. Cheikh Ibrahima ndax yow di nga utiliser reen ak di joxe sunguf. ren danaa ko utiliser mais lu ñu sangoo la. Ah. am naa it beneen ren boo xam ne dama koy utiliser mais boobu pour ndoxu sitit la. mais ren boobu yow boo koy naan dafay raxasaale sa deret. ci ren mais ci mais sunguf. mais sunguf moom pare wu ma ko jox nit parce que sunguf dafay fatt rein. d'accord xam nga tey di nga toog ak benn sëriñ. Ah. mu wan la téeméeri jàngoro ne la dala koy faj. Ah. mais moom bu summee ko ba tëdd guddi. Hmm. xam na ne dafay fen <laughs> lu garaaw laa lay wax. Euh, euh, waaw loolu waaw loolu mën naa la ko nangul parce que yéen a xamante ci seen biir euh, Cheikh Ibrahim ñaata nit ay ñëw di la wax seen tawatu ñàkk ñàkk. bëri na. Cheikh Ibrahima dëkk bi ñu fi ñàkk. dama bañ ba am si solution boo xam ne yàggul dara incha allah dinaa ko taxawal. muy lam mooy nan la nit ki di def pour mën a am xaalis. ah te solution bi yëpp si alquran la jëm. dama def dama man dama gis ne internet bi chaque jour kenn génn ni wérdu bi boo ko defee am xaalis wérdu bi boo ko am xaalis julli bi boo ko defee am xaalis. man seexu personnel sama bopp laa lay njëkk jox exemple. waaw sa ce xam nga ne man 100 francs daf ma daan të. wax nga ma ko sa biir waxtaan jàng naa ko. parce que léegi ba bu ma amee téeméer. Hmm. par fukki dërëm laa koy lekkee. d'accord parce que duma ko mën a amaat ngir jafe-jafe. waaw Cheikhou man nekk naa Dakar di génn si télé. Hmm. ñu def ma benn liggéey boo xam ne si tànk la nekk. Hmm. maanaam su ma toogee yow dara duma jot mais bu ma buusee rek tey ma dee. ba benn doomu imaam Assane Cissé sama xarit dëgg mu tëdd guddi eewu ne ma sa tànk bi dañ laa liggéey. Uh-huh. waaye kaay ma dimbale la mu am fu ma yóbbu uh-huh. ko rek bi ma sangoo gàllaaj gi uh-huh. sama tànk bi doon metti seexu suba ba ngoon jot ay saxlaas yi génnee ayla maanaam suba ba jot ay saxlaas yi génnee ko bi tànk boobu bënnee ki ma ñaanal yàlla ba tànk bi bënn def na ma hmm. an sa oto bi ma ne ko kii kanaa dafa dof an sa kër gi ma ne kanaa kii dafa dof mu ne ma mbooleem lu la kaloon ci àddina hmm. dañ na waxuma la si weer de. Mm. si deux semaine mm. si laa jënd oto si laa jënd kër. parce que ci ñaan gi ngay ñaan. si si deux semaines. waaw wërsëg bi ubbeeku. si la ma yàlla teral ma jënd oto si la ma yàlla teral ma jënd kër. te tànk boobu moo la umoon. tànk boobu moo ma umoon. kon da nga bëgg a wax ni ñu bëri ñi ngi fi war a jot seen wërsëg dañoo umu. ñu bëri ñi ngi fi war a jot seen wërsëg dañ koo tëj bi ma jugee si loolu ma demaat si moom mun ne ma an sa kër ak Dakar gi. ma ne ko dakaar Dakar dafa cher kër de terrain dafa cher mu a ma joxoñal fu la neex nga am kër ma ànd ak sama benn xarit maa ngi koy nuyu li may wax nii dana ko seede ñu jugee fi dem Tivaouane Pël bi ñu demee Tivaouane Pël ñu wan ñu benn cité ma ne ko man fii laay dëkk mu ne ma yow kanaa da ngaa dof fii terrain di jar vingt deux millions ma ne ko balaa at danaa dëkk fii nii bi ma lay wax am naa kër ak léegi yàggut matu matut six mois hmm. yàlla yàlla barkeel ma kër ma am ko macha allah kon man dama am loo xam ne dama koy natt comme sama bopp. Mhm. man seexu damaa xam ku ñàkk nax damaa xam ñàkk ni muy def si nit. est-ce que di nga xool nit xam ne dafa ñàkk parce que dañ koo dañ ko ko def wala dafa ñàkk parce que wërsëgam mu ubbeekoogul mais am na ñoo xam ne ñu leen dara parce que seen wërsëgat yotagul rek. tey recevoir naa tey koo xam ne tey seexu. 2013 hmm. mi ngi amee 29 milliards. 2013. bii waaw waaw mi ngi amee 29 milliards. tey maa ko may tey fukki junni yum jëndi jee dépasse. loolu dix ans la. dix ans net. bi ñu koy vingt neuf milliards. vingt neuf milliards waxoo waxoo vingt neuf de. vingt neuf milliards mi ngi ko amee di maye ñeenti camion xar par tabaski bu tabaski jotee mu jën jënd ñeenti camion xar maye ko. waaw lu ko def loolu. dañ koo liggéey ba amatu dara. seexu. waaw nooy amee vingt neuf milliards di xoole bañ lay liggéey noonu. da nga koy def parce que sëriñ ñi ngay dem ak yëpp dootuñ amati obsession yow pour mën laa dimbali. te yow da ko bëgg jàppale ba mu jotaat xaalisam boobu. ba mu ñàkkat la mu nekkoon biñ xamante ak man ak moom yàggut waaw jouru tey ah. biñ xamante ak man ak moom biñ xamantee ma jox ko sangat lépp juróom-ñaari fan la waaw jouri tey indil hmm. na ma contrat boo xam ne trois cent soixante millions la nga jox ko nga may ko yow fukki junne ma may ko fukki junne ne ko demal nga jëndi essence lépp looy dox lu la ko mën a yombalal nga jox ko nga am ko macha allah man dama xam ñàkk ni mel moo tax su ma gisee ku néew doole dama lay dimbale yow ci ban secret ngay ubbi nit. latif su ma lay ñaanal yàlla. Hmm. damay fexe di la defal latif pour ubbi la pour nga mën a am dara. Hmm. man seexut bëggu bëgguma ku may ànd ak mu arrière damay bëgg képp ku may ànd ak mu am dara. mais sëñ bi am na ñoo xam ne tey dañuy dugg ci maanaam ci lu leen di tëj ah. waaw am ndax yow di nga bindal nit alxuraan. fekk muy jëfandikoo yenn yi ba pare di sangoo alxuraan bi bëgg a ubbeeku. man lépp lu nit di jëfandikoo. Hmm. jëfandikoo ko boo ñëwee si man ma ubbi la. ba ci utiliser. koo xam ne lew la même nit buy dem di utiliser njabar. déedéet waxuma foofu. maanaam dama ne même nit koo xam ne dafay jaaloo. waaw tëdd ku ku dul jabaram. Hmm. nga di nga koy koy jox lu muy sangoo loo xam dina ko ubbi. xam nga seexu. waaw damay laaj rek. dama lay wax la de laaj la de. dama lay wax tey benn question bu garaaw bu ñëpp mëntu sàmm. waaw. gis nga nit. waaw. du malaaka waaw du jinne waaw du xutba du dara waaw doomu aadama doomu aadama kese la d'accord doomu aadama bi nga xam ne nii tey mhm. yàlla natt na ko muy njaalaw mhm. moom concernant am la mhm. parce que lu lu bu ñëw si moom la non damay parce que damay dégg ci sëriñ si waaw dafa am sëriñ soo xam ne dañ naan lan bu ma lay jox yàlla mënu ma la jox ngay waa xam lu tax ñu koy wax loolu waaw dañoo óoluwul li ñu amee waa sëñ bi tey ngaa bañ a encouragé nit nit ngay ñaaloo da koy jox man tey xamoo ni may yeewoo waaw mën naa dem njaalo ji ñëw song sangoo alxuraan am na ñoo xam ne ñoo dàq njaaloo te ñoo gën a mën a am alal waaw loolu man xam am na man xam nga lan laa gëm man man boo ñëwee si man na ma Cheikh Ibrahima maa ngi nii waaw dama naan lan xam nga fi nga toll nga ne ma waaw mm. ma ne la calculal ñaata weer ak fi ma lay yóbbu te doo ko tere yu. defal lu la neex man amu problème yooyu man doomu aadama la es ce que man du def loolu. non dañu ma tànn jàppal ni li ma fiy laaj <laughs> li may wax nii question la damay. parce que dama ciy gis ñoo xam ne dañ ñaan la man samay garab boo koy utiliser di def yenn yi sax alku mën na la fekk wala da ngay tëju ba faw ñàkk gëm liñ amee la. seexu waaw sama kurus gii bu ma ko gëmee nii. waaw jàpp ne kurus gi chaque jour moom laay liggéeyee. waaw. amul mbindeef kurus gii. waaw buñ ko dugaloon si pëye jigéen sax bu xëyee bu ma si jaamoo yàlla li ma soxla laa si am. kanaan looloo gën a garaaw. waaw oh, sax yow yow yow sax daal yow moom wóolu nga sa bopp de. gëm-gëm la gëm-gëm bi nga ma am man bu ko sëriñ yëpp amoon ñëpp duñu amati problème yi soxla seexu may sël sëriñ boo xam ne nii tey. Hmm. su ma la joxee dat da ngay gis li ma la wax. dat dat laa dat. maanaam nga ne ma teel sama yaram lii ak lii mën na la bis tengam. waaw ka kala liggéey woon dana taxaw sa buntu kër ne la baal ma ak kanaa looloo gën a garaaw. kon di ñëw ñaanal nit mu ne la bés sangam. nit ñëw na ne ma baal ma ak nga ni ko nga ni ko non di nga ñaanal nit ni ko bis sangam dinga di nga ubbiku. di nga ubbeeku te da ngay ubbeeku. ok xam nga lu tax. Hmm. doomu aadama gannaaw bala yàlla booleek moom ba mu ñëw si yow. waaw la. waaw yii doomu aadama dañ leen a booleeg rawaan yu duwut ak seen rawaan. waaw yi doomu aadama dañ leen a booleeg biddiw yoo xam ne du seen biddiw mm. yi doomu aadama dañ leen a njabar ba nga xam ne dañ leen a tënk waaw dañuy dem benn année ñoom rek ngay dégg mm-hmm. nga dem si beneen année bi dañ leen fay complètement mm-hmm. léegi nag kooku bu ñëwee il est que nga njëkkee si yaramam bi mm. biddiw bi ngay dem jël téye ko ba xam ne maanaam biddiw bi ngay téye si kurus waaw biddiw bi boo ko téyee mboolem luñ ko mën a def si àddina rawaanam daf la koy nettali d'accord léegi nag rawaan bi bu lay waxal daf lay indi que waa ji comme yow mu doon dem si koñ ma ne la seexu maa ngi tollu fii jëppal nga ne ma laajteel laajteel fii defal nii indi localisé gis nga localisé yi ngay gis ni yëpp boo demee si alquran dañ lay wan fi nit ki di jaar pour nekk dara waaw localisation yi ngay gis nii yëpp boo demee si alquran dañ lay wax fi nit ki di jaar pour nekk dara soo ma hmm. xeexee man hmm. nga bëgg maa rey man hmm. su ma téye tabadeedaa balaa vingt quatre heures ma rey la te tabadeedaa alquran la waaw sabateer daabel xabir tabb ma xanaa alxuraan la su ma ko téyee man bala 24 heures ma rey la su ma bëggee nga ubbeeku mu wér man ne da ngaa damaa bëgg yow nga nekk dara yow hmm. ma jënd mbiskit hmm. ma compte si mille trois cent cinquante cinq hmm. su ma ko liggéey Isa Dia bu ma toogee juróom-ñaari fan dinaa la wax ñaati million ngay am si année bi loolu dafa gën a garaaw yow mi yow loolu <laughs> cheikhu man cheikhu man su ma lay wax sama bopp man cheikhu bu ma nit jàngaloon xam-xam asaral damay am problème man seexu li may wax yëpp Sénégal nit du ko dindi moo tax bu ma nit jàngaloon daneen wax ne diw mii moo ko jàngal amut sama benn mag sama benn baay sama benn mbokk bu mës a jël asaraal na ma utiliser lii. te soo taxaw di tare ak sama benn mag. moo ma mës a jox ay dog. dog yi bi ma koy jox. dog yooyu maa ngi siy liggéey fukk ak juróom benn si kawam. mais eh, waxoo ko ko. waxuma ko dama jël dog yi rek téye ko. d'accord man dama daan toog course huit heures si guddi ba huit si suba teel. seexu amul vingt heures vingt du soir huit heures si guddi jusqu'à du matin. te lenn rek laay lekk. mbiskit hmm. ak soow. boobu yaa ngi bëgg xam-xam bi ñëw. boobu maa ngi bëgg amal sama xam-xami bopp. man bu ma amee malaat bu danger danger dëgg-dëgg bañ na day dee. Hmm. bu ma toogee trente minutes danaa xam ba xam day dee wala day dund. génn naa xalwa dajeeg nit. mun ne ma damaa gént sëy ak sama yaay ma ne ko gannaaw suba da ngay dee demal bàttale ji sa bopp après mu dee day dee dafa gént sëy ak yaayam di ak gént bu ko wax ni gannaaw suba ngay dee an kay dama ko koy wax parce que loolu dee la ko ko waxee lan la la day dee xam na dee gëmu ko mais day dee yàlla dafay may nit lu rëy man de boo ma gisalee dee bu ma ko wax gis nga yàlla seexu dafay may nit lu kawe. isa <laughs> xam nga benn affaire eh. waaw dugg naa si Sénégal foo xam ne. Hmm. doo mës a gis sëriñ bu si dugg mooy seetu rawaan. seetu rawaan. lan mooy seetu rawaan. maanaam xool nit ki ba rawaan la composé ba ta nekk dara. ok doo mës a gis benn sëriñ bu teg fii ndox ne la tey seetu rawaan gi laa indi amut. Cheikh nee naa la man bu ma nit jàngaloon man. Hmm. ka jàngal day ndamu. man damaa jaar si ay jaar-jaar yu metti man soxna baay Niass maa ko daan yóbbul añ doomu Baye Niass maa leen daan yóbbul añ jàllar bi miin jumaa ba sama moroom yëpp dañ daan wax ne kii nii comme pas si jumaa ji rek lay nekk. ku la soxla fan la lay fekk. Tivaouane Pël sama kër. doo nekkee Kaolack Kaolack sama kër. Ah. man dama am adresse. li jafe si sëriñ la am. Ah. ma yàlla daf ma tàggatal. ba ba ma duggee dakaar mm. li ma njëkk opte mm. mooy dama ne comme doomu aadama yi may jox seen alal yi xamun ma. Mm. naa ut kër gu ma tabax dëkk si ndax ku ma fekk sama kër bu ëllëgee ba ma soxloo nga fekk ma fi. xaaral ma ñaan waa production bi nga joxe sa numéro. waaw bi njëkk mooy am na garab yu ñu daan joxe. Ah. yooyu dañoo changé méthode bi ñu koy joxee. garabu lan la. mooy garab yi góor yi. waaye lu tax yéen ñëpp ay garab yi góor ngeen joxe. déedéet xam nga garab yi man. si gént lañ ma joxee secret bi koy defar. ci alxuraan nga koy defee. billaahi wallaahi tallaahi garabi kaan kattan. si hmm. gént laa amee secret bi. mais yow ci alxuraan nga koy defee wala ci reen. wala ci alxuraan laa koy defee dañ na ma. waaw jëndal gerte. Hmm. jëndal mboq. Hmm. jëndal dugub. jëndal bësi. jëndal jar. ñu jox ma benn aaye. na ma liggéeyee ko lii. loolu yëpp la nit da koy lekk moom. amut kenn ku ma koy. jox mboq gerte ak jar. kenn ku may jox garab gi. Mm. te doo ñëw na Cheikh Baye garab gi. loolu koy mëkk déedéet da koy booleeg meew di ko naan rek. te ah. garab gi li gën a garaaw boo amee feebaru biir. Mm. ay comme ngay jël ay jalis ak ay ay deret yu jaxasoog. da koy mm. raxas ba mu set. parce que boo nekk boo amee insuffisance naa da koy faj. ay alquran bi nekk si biir. moo tax day raxasaale loolu ba mu set. man dama koy jox ñoo xam ne dañ daan jël jalis trois séances dañuy dem ba mujj si. duñ jël sax tuuraat science mën neena toog un mois duñ jël science man sama jëmi bopp man xaw ma sax loolu lu tax mu faj leen ñoom ñoo ma ko wax bu buñ leen xoolee dañ leen wax leen seen deret jaa ngi normal. sëñ bi émission bi mi ngi waaj a jeex. waaw euh, joxal sa numéro. numéro bi mooy 77 619 54 54 beneen bi 77 367 70 70. mais xam nga. ñun ñiy faj ñun ñiy faj ñi ngi fi ah. Mm-hmm. mais kenn dafa wóolootul kenn. waaw loolu bëri na. parce que ñiy naxee dafa bari. waa nag saaxu seexoo ñi bëgg ñaan lu yàlla. waaw ñoom xam ne na ndab loo dem. waaw da nga fekk lu fay yàq. wala nga gis nit man xam naa ñuy faj. wala nga gis nit mën a faj lii war yam ni moom leneen moom leneen lay boole ca leneen. te xam nga ni moom day faj mën na faj lii parce que jox na la ay preuve nga gis ko yàgg naa faj ñi ay gis mais dañuy dem ba laa laaxaala ca yeneen yoo xam ni ku ci mais après par la dañ ñaan sëriñ sépp a xam nga la moo tax man ma tabax clinique yow da nga am clinique xam nga moo tax ma tabax clinique clinique nga wax clinique clinique laa xam nga la moo tax boo xam ne da nga fay entrer nit ñi xam nga la moo tax ma tabax clinique waaw dama mës a tëdd benn guddi. ñu ne ma Cheikh Baye fexeel nga tabax dakaar clinique mboolem jëng-jëng doomu adama yi ñëw dakaar yow rek yaa leen mën a faj. dañ leen fay hospitaliser. mboolem jàngoro bu nit am. Hmm. si même jour boobu la koy clinique bi di raxas mu dañ. mais kenn du fa fanaan. bu bu nit ñëwee sans dépasser décret yaramam ni mu mel. mais loolu am na këyit. dina am kayit incha allah pare neen pour loolu mais dama lay wax na la. Hmm. comme ndab loo dem. Hmm. ni mi amee ña fay dem di ko yàq. Hmm. am na ñoo xam ne ndab loolu dañ ko raxas ba set. d'accord man tey Médina Baye buñ ma xoolee. Hmm. fi ma dëkk man. Hmm. dañuy wax ne kii ku war a ñaan ku war a defal nit ay ñaan lan. da set daal nga sell. du sell bi. Ah. sama baay bi ma jur. moom loolu lañ ko xamee. te sama baay baayam même bu nit tëddaan bañ jàpp ne day dee da koy dekkin da koy yëkkatiwaat te ñëpp nangu neen na. jàngoro ju nit mën a indi bu la tegee loxoom nga saafaraw man doomu sëriñ laa jàllar bi ku nekk sëriñ jàllar bi ku nag nekk nit koo xam ne gëm-gëm gi ma am man seexu man mooy li may dimbalee nit pour nit nekk dara gëw ma nag kenn ku dul yàlla waaye lépp lu ma yàlla nattoo jox ma ko dinaa ko gérer si sama bopp ba natt boobu wàcc waaye nag amul kenn ku ma gën a ragal yàlla li tax ma ragal yàlla mooy xaw ma fu seexu jëlee fukki dërëmam ba indil ma ko kon fukki dërëm yooyu bala ma koo lekk naa fexe ba lekk si àq bu set. jërëjëf. Euh, waaw Cheikh Baye. Hmm. jërëjëf ci wuy si bi nga ñu wuy si ci hmm. Jojo et ses Mara. Hmm. ci leeral bi jërëjëf ci euh, dimbali gi ngay dimbali doomu adama yi comme ni ko waxee léegi. ñu bàyyi la nga def sa dernier moom waaw di kontaan bu baax. ci kóllëre gi ñu yàlla boole man ak yow. Mm. mu doon kóllëre gu rafet. des fois ñu danay ñëw si man sax ne ma dama gis sa diggante ak Cheikhou dafa rafet. waaye nag suñu diggante bi yëpp c'est bizarre. Mm-hmm. mi ngi nii Sénégal. Mm-hmm. mosoo bind jox ma. mosoo maa sang mosoo ma ni takkal mu mosoo ma ni mëkkal mosoo ma ni naanal non yàlla yàlla rekk a tax may wax ah. billaahi wallaahi taala yàlla ñu boole. waaw yàllaa ñu boole rek. ñu soppante bëggante. Mm-hmm. waaw nga ñàkk ki ñaan lool nga doon nit ku baax. waaw xam nga sëriñ mun ta ñàkk seen genre gi. waaw parce que yow man nga ma wax loo xam ne am na koo xam ne dana ma jaay ba du ma ko wax. waaw lu tax doo doo yooyu ngay jox gars yi doo ma ci jox. non secret yi. <laughs> dama lay tooñ. <laughs> vas-y waaw xam nga yow. Hmm. dafa am lu ñu lee loo xam ne si ruuxu Cheikhu Tidiane la. waaw. dafa am benn waaye dama ne ko. seexu bu la waatalee si seexu Tidiane rek jàpp na li mu la lu wér la. lu ma la woon ne wax ci seexu Tidiane bu yeboo nga jàpp. te ñaareel bi man dama gëm nit ku ma yëg. Mhm. Baye Niass dafa wax mu ne fexe leen ba nawle bi leen yëg. Mhm. ngeen nawloo ko fexe leen ba ki leen yëgul ngeen fekk mu yëg leen. Mhm. dañu mës a dajee benn jour si dajee bu rafet mooy bi Modou kemaan di takk jabar. ñu fasante kóllëre nga yëg ma lool ma nit ma yëg la. li ma man nag mooy su ma téyee sama course dama lay ñaanal yàlla ndax yow kun war a ñaanal nga mhm. Cheikhou fi nga toll ci Sénégal mhm. ñu bari dañ la war a ñaanal yàlla ndax dafa am gëdd goo xam ne def nga ko ci théâtre def ko ci comédique ba ñëpp nga xam ne tey suñ mënee am dara ci théâtre yàlla ak yow la di mos naa ko wax Mohamed Tyson ma ne ko li nga def ci làmbu bu ñëpp di lekk xaalisu làmb yàlla ak yow la kon dafa am nit kooku bu ko nit xamut mën na koo waxal lu ne mais bu ko duggee benn fan dina xam ne seexu mi daray àddina ñoru ko daray àddina ñoru la te ñett dafay dimbale nit nga dajeeg imam bi si koñ bi mu xam sa jikko nga dajeeg politicien bi mu xam sa jikko nga dajeeg président bi mu xam sa jikko dafa am importance parce que nit bu génnee àddina jikkoom rek lañ mën a changé. jërëjëf man day wóoruma daray àddina man xam nga suma bëgg-bëgg rek mooy xam nga lan. Mhm. yàlla na ñëpp nekk ci jàmm. di am jàmm. te barki Cheikhou Tidiane. loolu moo nekk ci sama xol bi. loolu mhm. laa gëm. man mhm. bugguma kenn ku am xam naa ne yàlla defalul loolu ñëpp mais bugguma kenn ku am jafe-jafe wala. ku am problème wala ku mais loolu nag mënul ñàkk tamit li ngay def am ñu rafetlu am ñu rafetluwul amul amul solo loolu mais li am solo mooy yow nga nekk suñu invité. te Jojo et ses marab yi yéen marabu Sénégal yëpp ñi nga xam ne bëgg ngeen fu ngeen waxee te amu leen ko wala bëgg ngeen fu ngeen waxee te xam ne télévision yi euh, ti nga xam ni Sénégal dafa am contrôle bi et tout ça te tey da nga wax wax bu ma neex maanaam sunguf yeeg reen yeeg ba jox docteurs yi seen gëdd mm-hmm. ma loolu moo tax ma gën la respecté parce que su sunu été marabu yu bëri dañ fi ñëw woy docteurs yi dañuy siis docteurs yi dañuy nangam docteurs yi dañuy sangam te docteurs yi mënuñoo ñoom jéemee docteurs yi ci réew mii docteurs yi dañoo am doole am gëdd am solo ci àddina trop kenn waxul leen li ngeen di liggéey baaxul dañ dañuy rek saytu leen ni ngeen koy defee bàyyi leen naxaate bi xool leen li ngeen di jox nit ñi c'est tout simplement ça mais wax nga wax bu rafet mhm. li docteurs yi moom jox nga leen ko yéen li ngeen moom jël nga ko. xam nga looloy àddina xam nga problème bi li tax. ku yaru nga ku dal nga. Mm-hmm. ku xam li ngay wax. xam nga lu tax docteur yi ñu war leen a jox gëdd seexu. waaw dafa bëri ñu am problème yi rein. waaw sunguf moo leen ko def. dëgg la. dafa bëri ñu am problème yi jalis sunguf moo leen ko def. dëgg léegi nag docteur yi tey da nga toog ak nit seexu. Mm. nga xool kan kanamam. Mm. xool ay tànkam xool ay yaramam. Mm. yow mënoo koo faj bu si dugg. du alal ji da nga koy yokk jàngoro rek bu njëkk ba mag ñi boo jabetaan dañ lay sawloo boo sawee bu suba gi buñ ñëwee buñ fekkee xorom ak di lekk hmm. dañ naan la danga suukar mais léegi lu tax boo jabetee ñu mën la ko wax si sens yi te doo dem sawi ci ay machine dafa am loo xam ne si àddina loolu ministère bi moo ko war a seetu sax kanaa xamoo ministère dafa war a dem di seetu ba seetu tey doomu aadama yi yan bërëb la ñuy dem dafa fa jëlee ay garab di ko naan da ngay dem ba si médicament kattan sëriñ yi dañ lay jox ay comprimé pourquoi pas sëriñ dafa war a defar comprimé sëriñ warut defar comprimé. <laughs> waaw baax na jërëjëf yal na yàlla defal ñu jàmm rek. amiin li nekk seen àddina. ñu ñëpp lu baax rek lañ bëgg. te Sénégal ñu ñoo ko moom. ñu bëri dañuy saaga ndey dañuy saaga sëriñ si dañuy jaxasoo du dara lu du seexu. Mm. sëriñ si ñoo tegewut yoon bi ñu war a tege. mais buñ ko tege woon rek kenn du leen wax lu ñaaw. merci kontaan nañ trop. yal na yàlla defal ñu jàmm kontaan nañ trop. maa ngi nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp. di nuyu waa Mirina Baye. ñi ñu ma ànd ak ñëpp. ndeysaan wasalaamaaleykum wa rahmatullah. wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf kon ba yeneen i ayu bés incha allah